faithful. Yeah.

<laughs> merci beaucoup oh, euh, euh, moom nag euh, xale bu am talent la. xale boo xamante ne wéy di la yow way dafa nekk sa deret. soo woyee rek war na. mais Aïcha lan moo tax Coumba nekk sa idole nekk sa référence. waaw Bijou maa ngi lay siyaare. Mm-hmm. di nuyu sama tataaku ba Gawlo moom dama ko bëgg ba mënuma koo xool. waa ci Serigne Touba. Mm-hmm. ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér. bon man nag li ma gën a neex ci moom mhm. mooy dafa nekk nit koo xam ne ku mën a partager la waaw parce que lii coomo du ko def parce que ku nekk bëgg nga ku la wane mhm. mu dajale ñu ñun xale yi loolu xolom la ma koy ñaanal moom wér rekk la war a def ak gudd fan dama ko naw fexe na ba kenn yabu ko déedéet am na fulla am na fayda xam na li mu bëgg te ku fonk ay waajuram la surtout loolu ndax man dama fonk samay waajur dama bëgg sama yaay looloo tax ma gën koo bëgg te moom soo jógee pour di ko roy nekkul rek baat bu neex bi ak mm-hmm. way wi foo nga jël ay qualité yu ne ci moom mm-hmm. ndax day boroom jom bëgg boppam xam bu baax li muy wax xam bu baax fi muy teg tànkam mm-hmm. kon dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ci yàlla na baat bi wér yàlla na gën a yokk ah, ah, ah. <laughs> quest est très jolie elle est très jolie elle loolu <laughs> sa star gi noonu waaw <laughs> mag ñee ko jàngal waaye moo jàngal ndaw ñi xale ci moom la ñuy rootee sama yaay jàngi. Mhm. ajaratu Kumba Gawlo Seck. Mhm. yaa yàlla nga dund. yàlla nga wér. amiin amiin la fi yàlla bàyyi. Mhm. ajaratu Bijou Ngoné. dalal nga ndaanaan. kii nga dalal. kii nga dalal. kii nga dalal. waaw waaw. Bamba Seck mooy baayam. compositeur de musique bu mag fii ci réew Sénégal. kii nga dalal ndaanaan la ajaratu Fatou Kiné Mbaye yaayam ah, wayli wayli la yaayam kenn ndax ko way ci réew mi laaj ko Soda Mamba Fall laaj ko kii Kiné Lam waaye laaj ko la ko wax laajal maam xaar ma jaaga kenn mooy yaay kii way sàccul de déedéet abul de déedéet ñaanul de déedéet daa doon waaye gannaaw ba mu doon ne daa jàngi kii jaar ñaari bopp la mhm. paaka ñaari boor la fu ko neex lay xottee waaye jaaru ñaari bopp la fu ko neex lay màttee daa jàng nga way ba noppi doon na ay way ku ko am bëgg la kii nga dalal bii su ngóone tubarkàlla macha allah xale bii bu wayee daa war a way waaw waaye bu ko royee da ko war a roy parce que dafa prouvé dëgg la en 1998 la am double disque d'or waaw un double disque d'or mhm. benn disque d'or waaye bu ñu def ñaari disque benn ca kaw benn ci suuf ci benn tableau <laughs> waaw lu raar teg ci disque platine. du ko de. déedéet. li ma lay wax 1998 la 25 ans ci tey. xale yi fi judd 25 kon kii ba muy téye musique bi du léegi. taxawaay bi ma am ci musique Sénégal waay la woo xam ne doona ko taxawaay Kër ma Guédiawaye Thiaroye route de Mbour Pikine Thiès Kaolack Tamba déedéet taxawaay Afrique la. lay yàbba kii c'est la reine de la musique africaine. Mhm. sunub saga. waaw waaw ne. beneen dëkk bu ko amoon di ko sagoo. Mhm. beneen dëkk bu ko amoon di ko tiitaroo. beneen dëkk bu ko amoon di nga ko ndamoo ñun Sénégal noo ko am sunu fierté. Mhm. sunu saga. nan ko ah, wax waaw waaw waaw. c'est la de la musique africaine. dëgg la. ma lay ñaanal sama yaay ji yàlla guddal sa fan te wér say cër bu baax a baax. Mhm. di woo réew mépp ci le treize mai. incha allah. ajaratu bii si góone. damaa bëgg wax ak réew mi. waxal ak ñoom kii wax ak ñoom c'est le communicateur du peuple. ki wax ak moom moo doon lu mag ñi. maa la ko wax. bisu kii wax ak réew mi. moo doon Alaaji Mansour Mbaye. Seydou Baye ma wax la grade bu mujj bi kii wax ak réew mi moo doon Alaaji Mbaye Peex. kii wax ak réew mi moo doon Abdoulaye Sy Mame grade bu mujj bi maa la koy wax. c'est le communicateur du peuple. maa la ko wax. le 13 mai. waaw waaw le 13 mai. le communicateur du peuple. waaye le grand porte-parole. de Waly Ballago Seck de Waly Ballago Seck le chant du peuple le chanteur du peuple loolu dogal yàlla. <laughs> ngoone damaa bëgg réew mi bàyyi xel bis bi nga xam ne mooy sama bisu yaay ji. waaw waaw jërëjëf. Uh-huh. jërëjëf kontaan naa ci yéen ngoone dama bëgg réew mi bàyyi xel sama bisu yaay ji dafa nu wéetal ndax dañu toog ñetti at dégguñu harmonie ñetti at dégguñu mélodie déedéet dégguñu fenn fu octave ñetti at dégguñu octave bu jegee taas ak taaf yi ñu fiy dégg yëpp mi ngi rez-de-chaussée ak premier. dana waxante dëgg. Aïcha Asfira waaye waaye octave. Aïcha Aïcha sa doom yow la mënu ñàkk octave. <laughs> octave mu jéggee taas laal yi moobul. Ah, wax dëgg yàlla man nag le communicateur du peuple dégguma ko. waaw waaw waaw dégg nga loolu. moo ko def ci yow mooy sa ndey. kay wax Aïcha Assou <laughs> waaw waaw macha allah macha allah. ah j'étais ému jooy jooy naa fii rek waaw jooy jooy naa fii rek. ak suñu maam daal yow pare go yow pare go yow pare go nga. ndeysaan waaw treize mai bi faa ñu ñëw ci. ndeysaan macha allah di ca kaw. ndeysaan ndeysaan ndeysaan.

tuwaalin faal nongo ku mongoy ngay maneel ko dungoy la sukaaɓe jooje mene yaane waagaan manuloy goro furi ay waay ay sa bul yàq suñu na sama dooma moom man ko ndeyam dénk sama dooma barki de moo njaay rek fii ci diine de gala bu mujj bi ñu doon defal ajaratu Fatou Guewel Diouf moo ubbi moo def première partie di ndaanaan nag di xale bu man a way ma fonk ko lool bëgg ko ni nga ko gisee nii mu doon ndaw lu ma am ndeyam la ko jox lii laa ko fonke lii laa ko nawe sabab dooma man mii lan ko dénk yaay jébbalaat naa la ko ci xol bu sedd guy sab dooma sab sëta yaa ko jur jur baayam dénkaat naa la ko mayaat naa la ko damaa bëgg kii di la dar dina ci sa ginnaaw di la aw ndax yow rek la bëgg kii kii carrière am bu sañoon ba àdduna tukki day na ci sa ginnaaw soxlawul dara bëggulul boppam dara yow rek la bëgg yàlla ko yàlla bàyyi ak yow ay sa dama toog <laughs> ngoone ay sa nga wéyaleel animatrice mag bàngo balaa maa ñëw ci le 13 mai fu ma jaar wax la lu baax li ma xam ci yow ki la koy wax moom la réew mi bëgg ngoone ki lay wax lu baax lu ma waxul lu baax ci réew mi réew mi ko mhm. c' est le choix du peuple. loolu la yàlla dogal c' est le communicateur du peuple. nañu nga am jom. nangoo liggéey fonk sa bokk fonk say mbokk loo am dimbali nga sa nday barke Demba Ndiaye ngeen ngi sa kër fii ci aéroport këru 400 millions nga tabax maa fa dem. macha allah maa fa daan kafe tegle sama tànk toog ci njogaan ba balancé wu dem gauche dem droite nga wuuf sa njabootu nday nag mënoon ngaa tabax sa kër ba mu jekk fat ci wéyu ak i bandi waaye dama ne sa kër gee boo xoolee gauche. ka tëdd ca néeg ba samaga boo xoolee duraat ka tëdd ca néeg ba saraka ah xam naa li maa fa ñëw nga am jom nag lekkoo dara bàyyi say mbokk uuf nga say mbokk waa kër bàyyi uuf nga say mbokk waa kër yaay dama lay ñaanal nga gudd fan te nga wér fii nga ne ñu bokk di liggéey daan suñu doole kenn jëppiwu la alaaji njaay da lay sagoo ma maram di la sagoo tama xam ci lu bari nag ndax foo da fukki at doo fa gone te def naa fii fukkaat ñu tujul benn dërëm barke Demba Ndiaye laa ko féete 2 novembre kon maa ngi lay ñaanal sa jàmm yàgg yaa booy bis bi doonatul sa bis bisu réew mi la moo tax maa ngi woo sénégalais yëpp mhm. ci ñu bàyyi xel ni 13 mai bis la boo xam ne tubaarkàlla macha allah l'histoire a déjà retenu waaw bis la boo xam ne balu fetal bi benn sox lañ koy sox ku mu rëcc yàqu nga dootoo ko gis mhm. ma bëgg nag réew mi yëpp ñu waajal ñëw musée bii des civilisations noires. waaw waaw ñëw wuy si sunu yaay ji nga xam ne dañu ko namoon ñetti at ci ren. di munoo cee ñàkk dégg nga ñu nam ay way. nam ay nga jot nag occupé nga ndax sa programme dafa chargé spectacle son et lumière. waaw waaye nam it ay invités de surprise et des invités de marque au niveau national et international. Mhm. te ñëpp danañu teew ndax xam naa ki dara ndax maa ngi ci staff bi bokk ci liggéey bi. maa la ko wax ma lay yëgal na yaay su ma bàyyi ju baax ji nga xam ne moo ma teree dof. Mhm. di alaaji Mamadou Yatassay mu baax mi. billaay mu baax mi jënd na 200 billets macha allah alaaji Mamadou Yassine deful yaramu neen na ci mbedd mii ñu may jaabante fan ak jox nga ma enveloppe bi ngay ñëw ci moom bi may ñëw léegi la ma jox enveloppe na ma boo demee joxal bi su ngoone suukaru kooram lay ndeysaan nee na ma ma ne koor ci biir moom na wëndal wallahi ne ma ma ne mhm. ko naam mënu ma ma ko ci sa ay ko borom Aquatera ñu koy gërëm bu na sa jàmm yàgg danañ def une mobilisation une forte délégation toog saf-safal ay yëngal-yëngal ñëw wuy si la dégg loolu <laughs> munoo fee ñàkk jour boobu munoo fee ñàkk waaye da ngay dëgmal li nga xamante ne moom mooy le 3 juin ñu jëm Paris ah loolu nag tubarkàlla macha allah danaa ci sawar a wax waaw le 3 juin ñu nga jëm ca Dôme de Paris mhm. incha allah tubarkàlla macha allah kanuy bunge la ci jóg dégg mbaaye maamam mhm. dañ ko weyloom bañ ñu dagg bopp waali penn manga mi ci belal moo di kontaan kontaan naa bu baax personnellement la ma wan cadeau bi nga koy yow sama fierté nga donc yow yow wax dëgg yàlla dama lay ñaanal ngoone man yow ak Waly ñoo bokki maam. Mhm. maam Mariam Buru sëy sunu maam. ci ko Ngolo du Sénégal. Mhm, dafa koy wax gaañi ree suñuy maam àndee wulu Pikine ak Thiaroye Guédiawaye Kër Massar. kontaan na bu baax a baax suñuy maam ci Congo Brazzaville la ñu àndee wàcc ñibbi si Sénégal. <laughs> boo àndeeg man man nga war a àndal soo àndeeg Waly Waly nga war a àndal. su ma àndeeg yow yow laa war a àndal su ma àndeeg Waly Waly laa war a àndal ndax suñuy maam la woon. ñu ngi waajal nag le 3 juin yaay yaay suñu invité d'honneur ca de Paris sa doom sa soppe sa xarit Wally Ballago Seck le roi de la musique africaine moo jëm nag ci Dôme de Paris fas yéene bëggal soppe yi ci mbaax. jërëjëf ngoone dana tàng dana métti. ah waaw dana yàgg dana neex. loolu faaw loolu je de Wally. fii balaa loolu chaque émission damay bëgg di. réew mi dina am jàmm. da da seen recrutement kii defe naa seen loxo ngi ci. Ah, waaw yóbbu ngeen ko lii. ngoone yow ku la amul wuti la la ñàkk it waaw ku la amul na la wuti. ay wax desatul ci réew mi réew mi yëngu na Omaro mu Seex Béthio le griot du vingt-et-unième siècle le communicateur du peuple porte-parole Wally Ballago Seck nga saf sap ci réew doomu doomu Kumba Gawlo. yaay eh, doomu Kumba Gawlo. doomu Kumba Gawlo sax. <laughs> <laughs> waaw loolu la yàlla. yaay jërëjëf. merci jërëjëf maman. <laughs> yal na la fi yàlla bàyyi. jërëjëf ah, yàlla wéeral bàyyi jërëjëf yaay. Ah, wax dëgg yàlla toujours à nous faire plaisir. Kumba euh, euh, euh, wax dëgg yàlla Omaro ah toujours à nous faire plaisir. toujours égal à lui-même ah nit koo xamante ne wax dëgg yàlla fierté la ah nee naa ko yow yàlla na yàlla lafal cat rek ah ñoo xamante ne mënuñoo bàyyante seen ànd dafa war a rafet donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax Kumba il faut ba bàyyi nag nga def say impression parce que gis nga li nga xamante ne moom mooy Aïcha. sama impression gis nga ko Bijou man jooy naa fi yëpp. waaw jooy naa j'étais très très émue parce que Aïcha daf may fàttali lu bëri. Mhm. waaw parce que déjà way wi muy way man maa ko way. waaw mu ngi koy way ak euh, benn niveau bi. macha allah benn niveau bi macha allah. et puis deful benn fausse note aussi. sans aucune fausse note elle chante macha allah juste et puis am benn euh, niveau bi donc daf may fàttali lu bëri aussi looloo tax ma am émotion bu bëri vraiment bi ma koy seetaan. lan la lay fàttali. waaw daf may fàttali rek euh, man déjà bu may way possibilité yi nga xam ne doon naa ko am daan naa ko am et puis am naa ko ma gis ni vraiment moom si jeune aussi euh, yegg na fenn fii. donc c'est c'est très émouvant c'est très très émouvant vraiment sama xol tooy na bi ma ko déggee. muy waay est-ce qu'on si octave incha allah yàlla mooy maye la fi newoon jugu fi. Hmm. la fi newoon jugu fi maintenant nag xam nga nit moom mi ngi mel ni benn athlète bi rek wala benn sportif de haut niveau boo amee blessure da ngay faj sa blessure parce que tey jii ab Sadio maane su amee blessure. mu ne terewul dafay dëgër bopp football defe naa ne bu boobaa day jur leneen du dëgg. waaye il faut mu jël temps mu faj blessure bi. waaw pare nag entre wu waat pour mën a delluwaat au top niveau mais la fi ne woon sant yàlla. ci dellusiwaat boobu xaar leen ko incha allah le 13. Euh, incha allah mai euh, fële ca musée des civilisations. bu boobaa ah. dinañu xam bu boobaa dinañu xam. non date boobu faaw ñu waxtaan ci waaw parce que pare guma ci sama ay surprise <laughs> euh, bokk na ci ki nga xamante ne moom it. Euh, tantaam nga. Mm-hmm. Euh, waaye euh, xale la boo xamante ne bu woyee rek. Mm-hmm. kenn du ne guléet. Mm-hmm. parce que baayam wayli wayli la. la fille de Thiat Seck. dama koy bàyyi mu ñëw moom it parce que. neen damay bàyyi mu woy ba pare ma doon di wax li nga xamante ne moom mooy sama ay impression. ayca ñëwal léegi léegi léegi. <laughs> surprise yi du jeex kumba. waaye très jeune. <laughs> très jolie avec beaucoup de swag. ayca. macha <laughs> euh, euh. allah macha allah. doxal ñëw. macha allah beneen ci surprise yi tey du ma pare ak yow Kumba ci surprise yi. moom moom macha allah. <laughs> pusi waatal tuuti rek. bis mm, nabi. ndeysaan. sallallahu alayhi wa sallam. gën gi mindeef nabi <laughs> bésu it la woon ke naka noonu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne xaa sa yaay Fatimatu doon sa maak wa Aliyun ak Xasan ak Huseynu doon say mag xale ba daldi ni ko eh, mu laaj ma lu may jooy ma wax ko mu yóbbu ma këram kon man rasulullah moo tax xarit ya daldi ni ko yaa sañoon suñuy baay dee ci xare ba nëx ya Rasulullah Sénégal déglu man doomi nay wax ak ngéwélee faatu kinne sama yaay maam am way taayaan sangoone way taayaan biram kumba way na taayaan ñoxor absa way na taayaan penda masib sama moo daa taayaan ndeysaan voilà. maam naax sek maam naax sek nag bu ñu jooyloo ñun ñëpp xam nga man yii sama strong fi jibi waaw jibi ñëw changé atmosphère bi c'est très compliqué jibi jibi dimbali ñu rek nga ñëw changé atmosphère bi <laughs> macha allah ma fille <laughs> jibi macha allah macha allah. Tafa est-ce que doo ñëw changer atmosphère bi. parce que lii c'est très compliqué. ah c'est très compliqué man mii sax day c'est très compliqué. maam naa fekk ah la fille de Thiat Seck euh, defe naa fii nga xamante ne moom la génn euh, ci way bi nga xamante ne euh, acapella na ko nabi de Coumba Gawlo Seck. macha allah mu wayaat ko donc Coumba. ça va yaa ngi yàq émission bi. sama yaa ngi ñu jooyloo ñun ñëpp te xam naa ne bu ñu jooyloo du ñu. <laughs> mam naar euh, mam naar yaa ngi yàq émission bi nag ndax wax dëgg yàlla boo jooyee ñun ñëpp dañuy daal di jooy. ah euh, euh, la moo tax ku ma nekk sa sa sa idole <laughs> moo tax ku ma nekk sa idole nekk sa référence. macha allah macha allah. ayca mais mais nag wuy ma boo jooyee ñu jooy ñun ñëpp ñu jooy man xaw ma koy wax ak day compliqué ah euh, te jubluwuma ci woon loolu du dëgg ah, euh, euh, tey la moo tax Tata Tata Coumba nekk sa référence. parce que. allez <laughs> allez. Aïcha c'est Mame Nar Seck c'est Mame Nar Seck de Thiat Seck. doom la ci Thiat Seck. Coumba naka la lay def nax boo ko xoolee. Euh, dina la rappeler li nga xamante ne mooy say 14 ans. macha allah macha allah vraiment euh, bi je ni may def kay defe naa gis naa gis nga ko ñëpp gis nañ ko je suis très mhm. yal na ko yàlla lafal cat parce que fukki at ak ñett fukki at ak ñeent ñaata at nga am maam Ndak. maam Ndak ñaata nga am 16 ans tu vois c'est ans 16 ans mu am déjà talent bi am charisme bi am macha allah. allah puissance vocale bi mën a yegg fenn fi et puis elle chante juste li am solo te ëpp solo ci waykat mooy waykat bu lu faussé mm-hmm. te moom boo ko gisee du faussé mu ngi way elle chante juste mm-hmm. et puis déjà reprendre na nabi nga xam ne dama ko way mais daf ko def ak stylam ak stylam ah ak vibe si nga mm-hmm. dégg sol bi nga gis harmonie yi macha allah macha allah nga xam ne voilà nga gis ni mu ni mu ciy surfee voilà loolu dafa nekk loo xam ne du ñëpp ñoo ko mënta na bi dafa kawe macha allah. ci texte dafa kawe kon euh, ma fille yal na la yàlla lafal cat. je suis très de toi. maam naar waxal benn moo rek yow tamit boo jàkkaarloog sa idole sànnil benn kàddu rek yow tamit Sénégal ñëpp a ngi lay ah di nu ñi nekk ñëpp ci YouTube bi certes je peux pas commentaire yëpp wax dëgg yàlla des milliers et des milliers de personnes à nous regarder ah sur YouTube ñu ngi leen di jaajëfal mhm. di leen remercier encore Tafa Niang defe naa ni ci staff bi ku bu ñu liiree commentaire bi rek di la mën a tontu donc des cœurs encore Mouhamed Var ah pour Coumba Gawlo on continue maam naar la ngay yëg si jàkkaarloog sa Kumba kontaan naa. sama yaay sëy ak mm. benn. et problème waaw il est très timide ah mais ça va euh, yow yow yow yow doomu ndaanaan nga. soo waxee war ngaa wax soo waxul war ngaa wax te boo woyee it war way euh, euh, ah dañ lay ñaanal yàlla. ah fi nga xamante ne foofu la sa papa egg ci talaa te dépassé ko donc euh, wax dëgg yàlla ah, yow ci promesse euh, voilà doomoo naa ko bës ni ki tey billaay wallaay parce que mi may fàttali sama carrière 14 ans et puis innocence bi naturelle bi mu am et tout ça vraiment bés ni ki tey je suis très contente nuyul ma sa papa bu baax man sa bàjjen laa. waaw sa <laughs> bàjjen la et puis moom mu way dafa war a way ndax papaam waykat la papaam waykat la. Eh, bàjjenam Bousso Seck. waaw sama euh, morceau yu bëri moo ko aw. ndax mhm. xam nga jéesi. Bousso sa awkat jéesi ak ni mu kawee. waaw. Bousso moo ko aw ak ni mu kawee. Mhm. donc moom macha allah yal na ko yàlla dafa cat. buñ ko encadré dinañ am dinañ am. tanaa bu ah, euh, mag ci devant Sénégalais yëpp. donc mhm. euh, ñu lay ñaanal. Euh, euh, Big Taf dafa dem euh, fi nga xamante ne moom mooy Côte d'Ivoire ñu koy nuyu ñu ngi fa foofu ca forum bi. donc di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. damay pareegu ma nag parce que dafa mat leneen. Mhm. Kumba tey du ma pare merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Naar. merci euh, euh, <laughs> inchallah. merci beaucoup tàcc leen ko bu baax. on n'a pas fini avec les surprises ah. damay dalal beneen un grand musicien mais en attendant ñu koy kaableel. xam naa ni Karajo bu fekkee ni que régie pare nañ ci euh, voilà un grand voilà un grand musicien qui va nous euh, faire aussi une autre surprise ce soir euh, je ne dirai pas qui mais euh, je laisse euh, aux téléspectateurs deviner parce que tamit c'est un grand monsieur de la musique sénégalaise tey damay bàyyi gars yi découvrir ko ayca tàcc leen ko mu ñëw léegi léegi léegi léegi léegi Mm-hmm. ndeysaan ah je suis très émue ah elle m'a émue. mais euh, est-ce que du Aïcha moom mooy rejoindre sama xol fees na ani Aïcha parce que guitare bi il faut mu am ku ma accompagner. c'est Réma ah d'accord. kii nee na ah mel na ni sa technicien bi nee na. Réma la.